dafa benn point bu ma bëgg rek euh, interpeller hmm. doyen muy l'affaire du docteur Alfousseni Gueye jur na polémique bu bu rëy euh, tribunal ba ay xar newuñu fa woon ay doomi aadama ñoo fa newoon yore seen nopp di dégg Pape il témoin oculaire il à l'intérieur du tribunal docteur la mu fa wax médias yi xëy fësal ko ñu génn ñu ne docteur waxul loolu c'est-à-dire man aussi d'une part duma comprendre dama naan dafa am ay zone d'ombre yoo xamante ni nit ay nit mënuñu toog dégg li nga wax nga génn ne lii waxoo ko mais je pense que loolu warul woon jur problème warul woon jur polémique. xam nga bind moo gën a foor wax ah dama lay wax. bind moo gën a foor wax. wax mën nga juum bind boo bindee ba pare da koy liiraat ba xool ndax li nga bind noonu la. li ma la wax mooy Alfousseyni liggéey a écrit très clairement et a expliqué lan mooy spermatozoïde ndax mën nañ ko gis ndax mënuñu ko gis ndax mi ngi dund boobu ba léegi yooyu yëpp il a si bind la ko expliqué yow nga nit al yow ay la même si tout la presse même si toute la presse évoqué loolu même bu fekkoon dafa ko waxu dafa bind te li mu bind mooy sama intime conviction. moom la bind en fait lu ma bëgg a wax si pour man débat boobu. Mhm. amul sens. quand même ba pare c'est le tribunal qui va qui va trancher. may xam nga lan moo tax pour man débat boobu amul sens. Mhm. parce que moom lu muy wax à la barre devant juge wax na ko ba pare greffier ba noté na ko. xam nga loolu amul sens pour man débat bi le fait que moom mu génn peut-être même man maa yoon ci ba lu mu bind waxul loolu man mun naa la ko confirmer fii.